waaw ba tey ñi ngi ak le grand champion Youssou Ndour nek dom ci Père Balla euh, nek tamit xalé bo am te mi ngi woné bopam ces dernières années donc mbeur ñi ngi lay nuyu euh, di la bay nga nuyu présenté wu. waaw ma leen fay bu baax baax baax yeen sama mbokk waa way waaw di leen ziar bu baax baax baax ku ci nek fek na la fi ma tok sama supporter yëpp di leen bëggé bu baax waaw. waaw mbeur am nga combat yow ak bo sey numéro 2 actuellement fan nga tollu ci waajtaay waaw ma ngi ci préparation yi di liggéey bu baax a baax comme ni ñu daan def rek di ñaan yàlla may ñu si ndam waaw. waaw ah, c'est vrai mais actuellement combat bi am ngeen date wala amagoo leen date. non ñun suñu combat ñun amaguñ date instant combat rek moo fi am date seekol bi ñu ñëpp amaguñ date. waaw kon actuellement ban ñaata séance ngay def par jour ak entraînement yi nan lay demee. waaw trois séances la ñuy def chaque jour. ndax bu ñu xëyee dañ dem salle musculation bu ñu jugee salle ñëw bi bu guddee ñu dem géej. waaw ñu gis ne Youssou tamit tey euh, say début mun naa ni daaw taxaw ak adversaire waaw da nga da doon ñëw daal ñëpp nga daal leen di daan avec la manière waaw te ñu xool ni tamit am na ñoo xam te ni yéen a démarré ndoo waaw tey par rapport ak ñoom am nga benn petit retard noonu laa ko mën a tuddee tey loolu lan moo koy expliqué. waaw xam nga loolu tamit li nga wax dëgg la ndax àdduna suñu borom yàlla suñu borom chaque jour day wan jaam xam nga du ma wax nattu nag. ndax si àdduna la bokk ndax am ñoo xam ñoo bërandoo ñu dem bàyyi ma mais soo gisee tax ma doon def loolu ma doon dox si kaw gaay at léegi dafa wute ndax boobu maa ngi bëri petit combat boobu dama bëggoon wane sama bopp mais instant ni grand combat lay bëri dama jël sama temps du ma yàqamte dara lu ma yàlla may ma jël yóbbu waaw. waaw mais ñu gis ne aussi ñëw nañ ci école bi mais gis ñu fi père waaw tey père fan la nekk ak lan moo tax ba léegi ñëwul ci bi. waaw sama papa boo gisee lu ñëwul xam mag la. te fu mu toll nii tamit dafa xaw a tawat maa ngi koy ñaanal sax yàlla yëkkati ko mu tane bu baax a baax a baax waaw mais dina semaine bee di ñëw incha allah dina ñëw bu neex suñu borom waaw. non adversaire bi est-ce que xam nga ko yàgg nga ko étudier parce que Boy Seye numéro 2 ñëpp xam nañ ni tey ñaar yëpp la boole tey c'est un bagarreur te aussi day bëree loxo bi weex na tarkaala macha allah lay technique. yow xam nga loolu boo koy wax soo ne loxo yi weex naa ay mën na bëre comme man loo war a wax. bu dee bëre dàq ma ko su dee xeex dàq ma ko su dee doole ma ko lépp lu ñuy wax si làmb rek am ëppale ma ko dara du tuuti loo xam ne ëppale na ma ko te jouru combat bu neexee suñu boroom maa ñaan yàlla kat moo mën yàlla ci yàlla yóbbu ak tal bañ fekk ko jouru combat bi di xam ndax yéen ku leen fu mu toll nii yéen a ci làmb ji di ngeen ñu xool man moom ñu xool kan moo kan moo nekk si yoon waaw waaw mbër kon le mot de la fin lan ngay tàggatoo sa kàddu gu mujj. waaw di ñaanal waa Guédiawaye ñu fi am combat ñëpp yàlla may leen ndam di ñaanal ñu may jàppale su ma amee combat su mel ni àndaw pa mamma xam nga super prise Ndiaye képp koo xam ne daf may jàppale su ma amee combat mu may ñaanal muy sonn si man maa lay ñaan yàlla nga gën a kawe waaw sama combat bi nañu jàpp si bu baax baax waa Guédiawaye bépp doucement bax daat lu ma juddoo xam ñëpp maa leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw loolaa am lu may sant bu baax. waaw mbër ñu lay sant di la gërëm mu nekkoon Youssou Ndour doomu Père Balla war a bëreek ak Boy Seye numéro 2.